dañu jublu ci ouverture yeeg yeneen priorité yi commenté leen au maximum mhm. waaye itam ku bëgg ñu seetal la mën nga woote ci wala 88 deuxième partie bi moom Marina dina fi teew mhm. ci rubrique boobu la di By loolu yëpp nag suñ ko boolee moo nar nekk rendez bu tay bi Jeanne ndàmbaleel fu la neex dëgg la Dieye buñ ko boolee moo nar nekk rendez bu tay bi Marina en deuxième partie waaye dafay safoo rek ñuy tàmbaleeg euh, Kira mu daal di ñuy séduire ci anneau bi nga xam ne indi na ko tey si. Jeanne lu ne la may ah, wan <laughs> Jeanne may wan lu ne. Kira si biiral ma na fi ma <laughs> sant lépp lay liggéey. tey moom yéen ñaa ñëpp dañu émerveillé macha allah. laf cat laf cat. merci. alors ñuy waxtaan ak célibataires yi parce qu'on a constaté un problème vraiment que famille toujours daal jàmbat bi même chose la moo tax ma indi leen cas bi <laughs> bi xamante ne mu ni nakar loolu muy dundu femme la bu xamante ne dafay dund avec euh, son homme en France léegi nag euh, mu constaté ne daal mënul am dara ci waa ji wante nag balaa ma ci gën a xuus dam leen di bàyyi leen déglu d'abord li mu wax man nag mu ñëw en tant que coach développé ko ak yéen dama am problème ak euh, ki may génnal bi génn nag ça fait cinq ans ñu nekk en France bu ñu bëggante xamal na ma dafa am jabar Sénégal mu ñi ànd di dem ba bëgg léegi ñi ànd dëkk bu ñu dëkkee mu ne moom mooy continuer fay chargé man ma jël lépp lu jëm ci dund bi lekk bi man ma koy jël en charge ndax fii Europe duñu tàmm comme ñëppay liggéey ñu ku nekk am looy jël comme responsabilité bu ñu doxalee noonu ma gis ne moom anniversaire rek jot ba mu may ma benn teraanga bu ndaw même gâteau du ma jëndal dara tout le temps moom waxtaanam toujours jàppali jabaram bi mu am Sénégal moo ko ittee ba mu jaaxaloon ko mu àbb ma xaalis bu bari pour tukki ak moom senegal ndax dafa am teraanga yu mu fa war a def mais ba mu jógee Sénégal di ñëwaat France indiluwaale ma dara mu ne nag dafay ñëw waxtaan ak sama yaay pour takk ma mais man dama jaaxle na xaw ma ndax kii suñu séyee lii dana changé ci moom wala du changé ndax ba ñu àndee di nekk ba tey ñu cohabité nanguwuma jox may dara ndax suñu séyee loolu du continuer ci moom loolu laa bëgg a xam ndax tey dama tiit lool ci ni muy comporté woo ak man te dama bëggoon mu gën a soppeeku li may mel ak aawam bi mu mel ko ak man alors comme noonu lañ ko déggee ak dame bi moom mu ni nakarlu le fait que ki mu nekkal du ko may dara du ko dimbali te gis na ne jabaram rek lay jox alors comme moom mu ni dëkk ak moom bokk ak moom charge yi di liggéey tamit femme bi day liggéey am na situation bu baaxam mais li mu namm ci ki mu bëgganteel mu koy toppatoo woon ko ne vraiment bëgg naa ko munu ko am mun koy gën a yóbbee ci kii di jabaram nekk Sénégal et apparemment jabaram bi nekk Sénégal dafa néew doole donc su ma xoolee situation bi ñetti point la retenir ci li ma gis mooy jigéen su bëggee day dutul raisonner day fàtte euh, di réfléchir moom day emporté wu ak sentiment am rek di dem rek moom lu mu gën gënee taxawu ko góor ki yaakaar nañ ne loolu yëpp dina ko dellu si ëllëg donc lu mu am daf koy bokk lu mu ko mun jox pour dooleel ko feneen daf ko koy def mais su commencé yàgg mbëggeel bi di wàññeeku elle commence à raisonner et là elle se rend que vraiment amul dara ci ki mu bëgganteel loolu di benn point beneen point bu na xamante ne situation bi présenté na ko mooy mu ni jëmee ci góor ñi góor ñi balaa ñuy sawar di defal nit il faut que nit ki nekk ci situation soit mu sonn wala muy jàmbat ñoom foofu la ñuy gën a sawar di yóbbu seen doole que di ko jox ki nga xamante ne macha allah nam mu dara ñoom soo leen seetloo loolu dafa bëri ci cas bi wane na ko encore beneen cas bu mu wane waat situation bi mooy jigéen ñi apparemment elles n'arrivent plus à envoûter un homme bu mu mun ko may hmm. ñoom du ñuy bëgg ku góor ki naturellement ñëw di leen di may mais loo xamul mooy seen jëf ak seen doxin mooy motiver góor pour mu ñëw di la jox te loolu seetlu naa ne sénégalaises yi bëri elles n'ont plus ce travail sa réflexe de savoir comment motiver un homme pour mu lay may ñoom du ñu yaakaar ni rek mag na war na xam les bonnes manière dan maa wax ne dan ma bëgg kon boog yaa ma war a toppatoo et après elle se rend compte que loolu amul donc tout temps ñun koy ah on motive un homme c'est ce que j'enseigne mm -hmm. je l'enseigne okay. au cabinet parce que je l'enseigne vraiment au cabinet mais dafa nekk tey problème bu xamante ne ñu bëri duñ koy jooy actuellement moo tax bu ma amee cas bi j'ai dit je vais le présenter parce que lui dafa bëri sénégalaise yu muy dal jeune fille yu muy dal et lu leen ko yóbbee l'amour tout le monde veut être amour mais amour bi mun leen di yàqal lu bëri bëri bëri parce que vous ne voulez plus que la raison suit vous ne voulez plus seen raison di leen di interpeller di la wax stop fais attention la raison du la tere na dund li na bëgg hmm. mais daf lay dimbali pour que na bañ perdre sa identité daf lay dimbali pour na nekk une femme bu xamante ne euh, dana garde une personnalité ba soo demandé wala soo defee yenn yi wala daf lay jox beaucoup d'importance mais malheureusement nu ñuy bëggee on perd beaucoup de valeur beaucoup de qualité en nous parce que jigéen bu nopp comme góor bu nopp dëgg tellement entière elle réfléchit plus elle s'en elle se laisse emporter danay dem ba tu ne fais que donner donner donner manière bi nay joxee day dem ba day yomb ba nit ki du dootul gis ci yow un besoin moo tax muy wëlbatiku ci keneen di ko dimbali parce que kooku moom day yuuxu day def bruit day alerté jàppali ma dimbali ma lii manqué na te moom gis na ne foofu su fa defee dara moom day am poids dañ koy estime parce que moindre effort bu mu dugal ci femme bu néew doole bi kooku du ñuy gis ne que ah waa ji macha allah jàmbaar la mais su ñëwee tey ci benn Kira bien installé am léppam moom lu mu fa dugal du feeñ fenn kenn du gis ne changé na fi salon kenn du gis ne fi indi na fi un plus donc foofu du fa sawar. mais Kira des fois ci waxuma sax si genre cas cas bu demee nii mais da ciy gis yeneen kaa yoo xam ni mooy ñu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy am xaalis ñoom ñooy choisir góor bi nga xam ne moom lañ bëgg a nekkal duñ lijjanti ndax góor ki na leen. wala noogu leen léegi ñoom pour ñu convaincre ku góor ki pour mu nekk ak ñoom ñoom ñoo koy euh, ñoom ñoo koy jox xaalis ñoo koy jëndal oto ñoo koy fayal appartement léegi nag ñoom pour ñoom par force ci retour bi ku góor ki daf leen war a bëgg alors que foofu noonu bëggeel mën na faa bañ exactement elles ont tendance à se comporter comme góor gis na pouvoir plus ne yéeg ci pouvoir danay changer comportement dootoo nekk jigéen dootoo saf jigéen góor ne gën a nuru te góor nag su gisee moromu góoram <laughs> <laughs> a de. wallaay su gisee moromu góoram rivalité nay doon. defante la ce n'est plus question yow yërmande jërmande pour mu wàccee la ko il faut mu gis ne kii jigéen la. donc jigéen ñi delluwaat leen nañ saf jigéen delluwaat leen wàccee seen bopp bu baax c'est des termes très simples mais qu'on emploie mais lu muy wax ci biir dafa bëri. fii nag moom duñ leen di jox aperçu. est-ce jigéen na sab jigéen loolu mooy ban feem ba pare euh, thème bi en même temps daf ma xawoon mag tuuti euh, nañ ma ko tojal tuuti mu leer mooy dafa am jigéen ñoo xam ne dañuy bëgg lan. Hmm? tey maîtriser wu ma thème bi trop. Euh, dafa am jigéen ñoo xam ne dañuy bëgg lan qu'est-ce que ça bëgg lal non wax mooy lan. ki ci gën a dégg wolof na ma tojal thème bi. maanaam lan la lan lañ bëgg quoi lan lan lañ war a mel. thème bi nit la buy jooytu. waaw métitam. moom ki muy wujjeel mooy lan. non wujjewul moom dafa nobante ak góor dafa nobante ak ku góor. Hmm, ku góor ki daa am jabar. dafa bëgg ku góor ki di ko defal li muy defal jabaram. ah ok loolu ci bëgg ba la góor bu la bëggee tëral la bu la bëggul du la jóg dara. te góor bu demee bay sotle jabaram. Hmm. Euh, en même lu ma am.